ab mayitul dara Macky Sall ñu dem seeti Karim Wade yaa ci may jërëjëf jërëjëf lii la parce que dégg naa démb Macky Sall naan xale yi battez vous ay gaynde ngeen gaynde yi dégg ci football d'accord waaye gaynde ci politique man mii la parce que am na loo xam ne su ma toogee di ko bàyyi mu sedd bu yàggee de mel ne li ngeen ma tagg bala may ñëw nekkul ci man nit ku nekk am na loo xam ne moo lay yëngal bés kay ni tey 2022 bi lu Macky Sall gas ma suul ko lu mu suul ma sulli ko parce que sama yaay nee na ma góor nga pour ragal te bu ma ko waxuloon sax man du ma ragal mais Macky Sall li mu fi waxoon yu bëri moom da ko fàtte wara moo ko tey moom da ko fàtte wara moo ko tey lii laa ko bëgg waxal moom lay waxal waxuma ak yéen Macky li la réew mi la xoon li nga diggoon réew mi yaa ko war a def war a def ko fàtte yaa ko tey parce que yow danga nga ñu wax loo xam ne danga nga toogee koy def defoo ko sama papa li mu commencé moom nga eggali waaye Macky Sall li nga waxoon réew mi da nga ko fàtte war a yaa ko kon moom moo ko tey man naa la xamel sa autorail bi nga tiitaroo ko yaakaar ne yow boo comme ça lii boo yow li la la li foo kay la <laughs> man naar yi nee ma lii foo kay la te lii li nga ci dépensé ci xaalis ak li nga waxoon ak li ñu ko foogoon yow xam nga ko bu baax kon yaa ko tey ma nekk duma topp sa ginnaaw yow yaa toog sa yaram tàng <laughs> nga ni man ak Khalifa Sall dina ñu amnistie yaa ko waxoon da nga ko fàtte wala yaa ko duma may jaaxati yow nga ne li yow yi ay gaynde nañu nañu nekk gaynde yow gaynde baa ngi nii dang ma fàtte wara dang may fàtte fàtte wara yaa ko kon xam nga li nga def Macky duma la may dara parce que léegi affaire bi entre man ak yow la duma fi nekk ñu naan may Gorolia may Suppu Kandji may ñàkkatang man duma ponse duma loolu nit la kon Macky Sall li nga waxante woon askan wi bu nga toogee ba tey te defuloo ko danga ko fàtte wax yaa ko on ko tey man mii nga yaakaar ni tapit la parce que waxuma ba tey sama yaay wax ma sama papa wax ma léegi militant yëpp d'accord nañu dama lay xamal benn affaire nga xam ko li nga waxoon askan wi diggoon leen ko danga ko fàtte war a yàqu moo ko tey ñaar laa la bëgg xamal du tey du suba du ëllëg Sénégal santul Sall santul APR góor laa kon yow da lekk damay lekk da naan damay naan da am soxna damay ami soxna te man rag mu doyul lii ku muy doy doom bu amee kër ndey day am kër baay si sama côté bàyyi nañ ma tàgg si sama côté ndey xam ngeen ne man Laurent mooy sama maam Barboline moo jur sama raqu maam ak Caroline Justin ak Justine Martin ak Martini est-ce que xam ngeen ne Belmondo ak Jean Laki ñoo bokk benn baay sama bàjjen bu jigéen bi Sophie Derneville ak sama bàjjen bu góor bi Alain Marcel ak sama eh, bàjjen bu jigéen eh, bu sama bàjjen bu góor bi eh, bàjjen bu góor bi Alain ñooñu dañu am kër ndey am kër baay Macky Sall Macky Sall Macky Sall une fois encore li nga waxoon askan bi te defoo ko danga ko fàtte wala